Euh, Boy Niang champion maa ngi lay nuyu di la siyaar tey ñu ñëw ci tiis boo xamante ni dal na ci monde làmb yëpp muy génn àdduna per Balla Gaye euh, yan ban témoignage nga ma ci mën a defal. waa avant loolu dama lay nuyu baax di nuyu sa internet yëpp xam nga di masawu ñëpp ci liñ bokk parce que Père Balla dama nekk koo xamante ni magum làmb la suñu papa la kóolu la ak sama papa bokk na ci njëkk wax per de Gaulle école de lutte Père de Gaulle école de lutte ba ay champion. moom sama pa sama nijaay booy ñaa bëri nañ mu am ñun kóolóore moo tax bu ñu déggee tiis mel ni dal waa géejawaay daw moonu làmb dal ay njabootam foofu ñu ñëw gunge ko dernier demeure ne ko suñu borom xare ko àjjana ba pare di ma masaw moonu làmb bi yëpp parce que lii dafa rafet tamit benn instant mooy ni moonu làmb bu ñu amee tiis rek ñëpp taxaw loolu wane na ni ñu ñëw bokk ndey bokk baay métier bi dëgg la. waaye aspect humain bi dafa am solo mooy le fait que bu amee kenn amee problème wala mu nekk ci ay difficulté ñëpp taxaw te loolu gis nañ ko bu baax gis nañ moom làmb bi yëpp teew fi ñu koy ñaanal suñu borom xare ko àjjana di masawu njabootam di masawu école Balla Gaye ñoom mel ni ñoom Balla champion bi xam nga ñoom lees Elton ñëpp ñu leen di di leen ko jaale di ko jaale moom làmb bi yëpp waaw. bi nga koy yëg bi nga yëgee génn àdduna ban moment nga ko yëg ak noo ko yëgee. waaw tey suba laa ko yëg waaw mu nekk lu ñu lu tiis suñu rek. parce que nitu làmb la nitu làmb moom fu mu manqué làmb rek làmb da koy yëg daal parce que xam-xamam mi ngi doon dem ci làmb ak lépp donc di ko masawu di ko ñaanal suñu borom xare ko àjjana koy fu mu jëm gënal ko fu mu jógee di masawu njabootam di jaare moon làmb yëpp waaw di jaare moon lamb yëpp affaire bi tiis sa boo xam ne dal nañu mais suñu borom du kenn du xëccoo ak moom lu mu def loolu moo gën mais ñun il faut ñëw en tant que lutteur lañ fi ñëwee ñëw teew ñëw bokk ñëpp tiis bi bokk ñëpp affaire bi di jaare doomam Youssou Ndour bi nga xam ne mi ngi ci métier bi xam nga ak njabootam bépp di ñaan sarax bi yàgg seen loxo di jaare yëpp jërëjëf incha allah merci beaucoup